asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaw mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram di ñaan yàlla suñu kàddu fekk leen ci jàmm man xibaari France dama cee mënula dugg ndax France ay dafa bari problème parce <laughs> bari koo xam ne maanaam su ci duggee moom damay fanaanee wax ba bët set ci ay problème waa France kese maa ngi bind deux mille vingt et un amul xasairil akbar fi taarixi faransa maanaam atam ñaari junni ak ñaar fukk ak benn moo di at mi nga xam ne ci la France gën a amee pertement ci histoire bépp ba mu jeex xëy na bu nu duggee ci biir di ngeen xam ne ci la France euh, amee pertement boo xam ne mosu koo am ci addinaam ba àddinaam jeex xam ngeen ni macro mi nga xam ne moo nekk président wu France ci ñi gën bañ islam la bokk macro mi nga xam ne mooy président wu France moo tax taxawoon ne islam dugg nañ ci problème yoo xam ne eh, zone de turbulence la eh, yàlla nag foofu def France am dugg ci zone de turbulence boo xam ne jafe naa génn bu ngeen fàttewul ne doon nañ fii def benn campagne pour ne nañ yëpp bàyyi marchandise am France bu ko kenn jëndati xëy na li tax ñu yolomal ko mooy danoo yërëm sunu président ndax wax dëgg yàlla ginnaaw France ñoo di ay sëriñam ah bu nu déngooyee ñu ñëpp àndandoo rek ci di contre France moom day mujj énervé du xamati ni muy def ndax kat maam Saraay ma Fall moom ku contre Bamba ci wetam du ko neex te dafa mel ni kii Sénégal ñoom gouvernement sénégalais ñoom ñoo di Baye Fall yi gouvernement France ci lépp lu mu mën a doon loolu moo taxoon ah, ñu yërëm njiit li ak ñi mu àndal ah, teggi suñ tànk ci France bañati koo bañati koo gala waaye kon ba léegi ñoom ngi ci France di wax ah goney France dégage yi nag ñoom bàyyi wunu moo tax it bawu leen bis nekk dem kasoog dikk xuloog coowaloo rek ci lañ dëkk waaye France moom kenn mënu koo sàng moom <laughs> ba kenn mënu koo tàgg ba du tawtee ndax seen président moo dëkk yonent yàlla Muhammad moo dëkk lislaam te ñu ko gën a bon a nga fa ñu xëcc ci réew mi am na ci sax ñoo xam ne nee nañu bis bu ñu moomee France turu Muhammad ñu ko tudde nit foofu ci France ay ah, c'est terminé dañ koy dañ koy dañ koy interdit waaye deux mille vingt et un daal mooy at mi nga xam ne mooy at mi France ñàkkee ci wàllu économique am loo xam ne mosu koo ñàkk léegi nag kon ñu déglu journaliste bi wax léegi ñu daal di wëlbatiku leeral leen li nga xam ne moom lay moom lay wax وخرجوا وحاربوا المسلمين في دينهم واغلقوا المساجد وضيقوا على المحجبات ومنعوا النقاب و و هذه الدولة تستحق أكثر من ذلك وربما هذا هو الحصاد الحصاد إن شاء الله والقاتل بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا في سابقة من نوعها طلبت بسم الله الرحمن الرحيم ولقد لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا البث المباشر عام 2021 عام الخسائر الأكبر في تاريخ فرنسا لماذا يجب أن يبكي مكرون تذكرون هذه التصريحات التي أدلى بها مكرون في أواخر عام 2020 في شهر أكتوبر تحديدا الإسلام ديانة تمر بأزمة في كل بقاع العالم اليوم منذ ذلك التصريح ونحن نرى كيف أن مكر صار في أزمة كل يوم نشوف أزمة في فرنسا منذ waaw ñu ubbi waxtaan wi door a dugg ak yéen ci xew-xewi France yi yéen xam ngeen ne alxuraan jooju ñu jàng ba egg ci wax bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqiin li muy tekki liñ ci jublu rek mooy Euh, yéefar yi nga xam ne dañoo taxaw ci fay lislaam nañu leen bañ a euh, faale bañ leen a bañ leen a kippee te jàpp ci suñuy diine te jaamu yàlla ba fekk ba ba dee ba ba ba ba ñu ca dee di fekk euh, bi loolu jàllee nag ñu ubbi la ci wàllu macro macro mooy président France comme nu ma leen ko waxee xam ngeen ne deux mille vingt ci la macro waxoon ne islam daa dugg ci problème islaam ci àddina bi ba mu daj ak jullit ñi du ñu jóg ci problème macro mooy ki nga xam ne moo doon saxal ne liberté de expression am na bañ mën a desine yonent di ko xas ak a saaga ak a yëjji te kenn mënu ci dara ah léegi nag yàllaa ngi tontu macro ci ayam gi nga xam ne moom la aye ci France ba France de France ba léegi bu dul deuxième guerre mondiale pertement bi nga xam ne France am na ko diggante deux mille vingt ak deux mille vingt et un xam ngeen ne euh, musta am ci àddina deux mille vingt euh, deux mille vingt euh, tolloog weeru octobre ca la waxoon waxam ja diggante booba ak léegi nanu topp France ba xam islam moo nekk ci problème wala waa France ñoo nekk ci problème منذ هذا تصريح وفرنسا تخسر مليارات الدولارات منذ هذا تصريح ومكر في أزمات وراء أزمات وراء أزمات وسأكشف لكم ذلك بالأدلة في هذا البث اليوم تحدثنا عن موضوع الصفقة التي حصلت بين استراليا وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على حساب فرنسا والتي جعلت وزير الخارجية الفرنسي يقول أنه يشعر بالخيانة والغضب والمرارة بسبب إلغاء استراليا صفقة الغواصات طيب waaw xam ngeen ne France dafa amoon benn contrat bu mu signé moom ak Australie mu war leen a defaral ay sous-marin mooy gaal ruuru yooyu nga xam ne dañuy dox ci biir ndox mi ñi di ko wax gaal nuuru ay milliards yu jur jeex nag moom la Australie waroon a jox France waaye léegi Angleterre ak américain yi yu waxtaan ak Australie xamal ko ne ko yow yaa sës ci Chine bu dee ci wàllu ndox mi la te yow danga nga war a am ay gar nuuru yoo xam ne dañuy dox par atomique waaye nucléaire lañu war a doxee mooy électrique nucléaire ba nga xam ne kenn du la dégg boo dee dem ci biir ndox mi waaye waroo jël ay gaal nuuru yoo xam ne ay jasel ak ay yooyu lañuy dawal di moo leen di doxal ci biir ndox mi léegi nag France waajoon na ba jekk yàngi biiram defe ne ni ko Macky Sall defal ci genn ak saxaaram gi dina ko am nag ca Australie te xamul ne nun ni sunu karaw yi gàtte bare mu ni la sunu xel yi gàtte ni leen dofee waaye ñi ñoom na seen karaw yi guddi tàlli la seen xel yi guddi dañuy xelaat gaa yi dem ba ca biir xam ne loolu du seen intérêt ñu waxtaan ak Angleterre ak Amérique daal di désigner contrat ba Angleterre ak Amérique war leen defal ay gaal nuuru yoo xam ne dañuy dox par nucléaire léegi nag ministère u bitim France nee na moom li mu mën a waat mooy ay wor la gis ak i tappale yoo xam ne américains yi ak anglais yi def nañ ko ànd ci ak Australie waaye dañ ko njoolu jaare ko ca ginnaaw fekk alal ji mu naroon a am ñu dox diggante mag am ko daal di yàq marché mu perte ay milliards ñu déglu ñu continuer طيب يعني ما هذا الموضوع يا جماعة وما هي الخسائر التي منيت بها فرنسا بسبب خسارة هذه الصفقة طبعا اللي عاوز يسمع التفصيل حول موضوع صفقة استراليا مع بريطانيا وامريكا يرجع للبث اللي فات لكن أنا سأكشف لكم فقط عن الخسائر التي خسرتها فرنسا بسبب إلغاء هذه الصفقة شوفوا كم هذا الرقم الكبير جدا سأكبر الشاشة وأعلنت أستراليا إثر صدور هذا الإعلان إلغاء الصفقة الضخمة التي أبرمتها مع فرنسا في 2016 بقيمة 90 مليار دولار استرالي 56 مليار يورو لشراء 12 kon quatre-vingt-dix milliards ci alali Australie di eh, cinquante-six milliards ci xaalisu euro moom la France perte ci li nga xam ne moom la seqoon ak Australie mu war ko ko jox ci alal joo xam ne ay sous-marin moom la koy defal euh, du ñu wax nag galgal ba ca am diggante Amérique ak Angleterre ak yooyu waaye ñun li ñuy wax mooy li li France perte quatre vingt dix milliards ci xaalisu Australie di cinquante six milliards ci euro moom la France perte ndoo benn bis ci loolu nga xam ne moo di safxa bi mu amoon diggante ak Australie te gaaye woon ko gannaaw xañ ko xaalis ba dem yóbbul ko Angleterre ak Amérique حفرة غواصة تقليدية من طراز التاك هذه خسائر فرنسا فقط فقط فقط في هذه الصفقة في هذه الصفقة التي اتجهت استراليا للتسلح من الولايات المتحدة الأمريكية لأنه السلاح السلاح الفرنسي سلاح تافه وتعبان جدا أخذت غواصات تعمل به الطاقة النووية بدلا من أن تشتري غواصات من فرنسا تقليدية عادية هذه فقط صفقة واحدة خسرت فيها فرنسا 56 مليار يورو هذا الرقم الرقم mu wax ne da leen di limal nag pertement yi France am ci diggante 2016 ak léegi euh, si tawa xamsiin milliards euro moom la ñàkk mu di cinquante six milliards euro moom la perte ci loolu nga xam ne moo di euh, euh, contrat bi amoon digganteem ak Australie xam nga France ay xur dabb la yore ndeysaan <laughs> xam nga xur dabb moom ñu ñu bëgg xur dabb rek ñoom ñoo ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo koy soxla waaye xam nga France moom fi ne nii euh, armée française ak saxaari France ak gaali français ci yem ay xur ndab bu lañ yore moom ci ñi gën a tardé la bokk léegi ci wàllu technologie ndax eh, léegi américains yi dañuy defar sous-marin yoo xam ne dañuy ak nucléaire anglais yi dañuy defar sous-marin yoo xam ne nucléaire la ñuy doxe même même même union soviétique day defar sous-marin yu dox ak nucléaire même Chine day defar ay sous-marin yu dox ak nucléaire même Turquie dañuy defar ay sous-marin yu dox ak nucléaire waaye France ba léegi man ngi ca xur dab bi sumaneem yu yàgg yooye nga xam ne ay xunt ay ay xunt gaane la <laughs> moom la man moom la man mënul lu ko weesu léegi nag bi loolu amee Australie xool ba yàgg mu ne man daal wax dëgg yàlla sous-marin yi dox ci nucléaire nga xam ne sous-marin bi mën naa daw ay ati ati ati ati at bala maa changé li koy dawal du ma ko jëndee sous du ma ko fa bàyyi di jënd sous-marin yoo xam ne bis bu nekk maa ngi jël ay racole di sol ay ndox bu dawalee tuuti mu jeex bu salaat ndox te sous-marins yi dox ak nucléaire demewul noonu mën nañu doxi at yoo xam ne dañuy dox mel ni ay montre électronique yoo xam ne dañoo am charge jant bi wala boog mu mel ni ay montre yoo xam ne ay montre automatique la ñuy may seen bopp ceen yooyu sous-marin léegi moo xew ci jamono te xor xur dabbuy France yi melu noonu léegi nag seer na te baaxut léegi nag Australie bàyyi na ko fa mu daal di ñàkk benn benn contrat rek ñàkk na ci cinquante six milliards de euros ci bénéfice. الرقم الكبير جعل فرنسا اليوم تصرخ وتئن أنا على تويتر على فكرة لما نشرت الخبر وجدت أن عدد كبير جدا جدا جدا من الفرنسيين نشروا نفس الخبر اللي أنا نشرته وكتبوا يعني شوفوا العرب والمسلمين شمتانين فينا شمتانين فيهم ليه؟ لأن هذا المكروه كان يقول الإسلام يمر بأزمة كبيرة وسوف نحارب الإسلام والانفصالية وسن القوانين ومحاكم التفتيش وأغلق المساجد والجمعيات الخيرية وأجندة المرشحين الرئاسيين في فرنسا كلها حرب على الإسلام واحد يقول أنا همنع تسمية اسم محمد صلى الله عليه وسلم الاسم الأكثر انتشارا حول العالم طبعا أكيد أكيد طبعا هو متضايق من هذا الاسم والآخر يقول سأحارب السلفية وماكرون يقول سأحارب الإخوان المسلمين أو الإسلام السياسي وهكذا هذه أجندة هؤلاء ماري لوبان تقول سأحارب الإسلام بلا هوادة الآن يا جماعة نحن نرى فرق léegi nag bi nga xamee ni loolu am na Twitter bi ñu xëyee tubaab yépp dañoo dugg ci Twitter di bind xam nga lañ la doon bind moom kay arab yi ak jullit ñi danañ ñu reetaan arab yi ak jullit ñi dinañ ñu yëjji ndax lan ndax dañu leen doon xeex Macron di leen xeex ne moom day tëj Euh, maanaam jamaiyat xayriya yi nekk ci France yëpp te jiwit ñu yore ko dana ko tëj dana soppar ci ilimaan yi dëkkul ci bitim ca réew ma ñu dàq leen ca biti jël ilimaan yi réew ma te moo leen di tëralal ay xutba ah Jean-Marie Le Pen jóge fële moom it di wax ne man bu ma jotee ci réew mi dinaa xeex salafiste yi yëpp dinaa leen génne France mbaa ma saxal leen pexe daaj leen ci kaso bi kële nag ca làng ga di wax ne moom itam bis bu ma jëlee réew mi frère musulman yi dinaa leen sàkkal pexe ci àddina bi islam ju jaxasoog politique dootu fi amee ñële di wax naan tur bi gën a siiw ci àddina mooy Muhammad waaye man bu ma jëlee France nit ku tudd Muhammad dootu am France ku ko fi am danaa sappi sa identité ku ko fi am mu te kenn dootu fi tudde Muhammad sa doom tubaab yi daal mel ni dañ leen a kur da dañoo ci kurmuut ñëpp di tëb di dal ci islam dugg na fi islam génn na fi islam def leen nii islam te du France moom dong moo nekk ci Europe waaye France gën a yenu aw banga ànd ak yambar yi yi topp ci gannaam maanaam Samba Sura Bali si ci Afrique nga xam ne ñoom ñoom ñoom France bu ñu tis ñu ne ko yarhamuka yarhamuka la sax duñ ko wax xam la ñuy wax eh, dañuy wax yarhamuka maréchal Pétain waaw ndax ñoom gëmuñu yàlla maréchal Pétain lañ gëm bu président français tichoo rek ñu ne ko yarhamuka maréchal Pétain ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma Hitler dàqoon ca deuxième guerre mondiale mooy seen yàlla moom la moom lañ moom la ñuy giñee waaye dañoo xamul nii kuy xeex ak yàlla sa ngong du dugg ci taq suuf bis bu nekk sa ngong ngay taq suuf léegi nag tubaab yëpp ngi dengoo di jooy ne am nañu gàcce am nañu aw naqar ndax deux mille seize ba léegi ba ci deux mille vingt et un lu France jóg rek daanu ca la ca des lu France jóg rek daanu ca la ca des lu neex lim amagun daal ci li xam mooy a ah, xanaa gaasub Sénégal ak pétrole bi nga xam ne fukk yum jël jox ñu juróom jox ñu benn jël juróom ñen foofu de baax la na fi ak saxaar goo xam ne dañ koo jënd ci njëriñful waaye ñun mburu mu ñu gaj fan lañu waaye <laughs> Australie Australie si bopp kat bi la ñoom kenn du leen togg ba ñu ñor kenn mënu leen a napp danoo bëgg seen bopp bëgg seenu xeet xam seen njëriñ xam la nga xam ne moom moom ci la seen seen seen bénéfice nekk ak la seen pertement nekk ñu bàyyi ko ah waaye nag ñi nga xam ne ñoom xalaatuñu lu dul ah moom kay lépp ngooge yaa moom loo ma ci mosal rek ma seetlu samay mbokk te te bàyyi gars yi ñoom ñi fetali tan su ma jógee yokkee nag marchandise bi ndax lu ma a perte ci réew mi ma yokk ko ci marchandise bi waaye nag yow li njëriñu réew mi France yow ah man mën nga kaa maanaam noonu la am am na ñoo xam ne noonu la ñuy doxee fii ci biir Afrique waaye nag Australie moom doxewul noona France daal euh, Australie door na ko njiil euh, euh, tàmbali woon naa defar ay ay ay ay sous-marin ay xurdabbi sous-marin yooyu nga xam ne ay gaz wàll lay dawee ah waa ji jëkkëre jëkkëre na ko nee ko daal man daal samay samay samay so cinquante six milliards d'euros daal wax dëgg yàlla ma jox la ko nga jox ma set xurdabbi yi nga xam ne amul njëriñ te man ma ci océan bi nga xam ne mag Chine ñëw ko séq te damaa war a aar Europe gépp aarale sa bopp te dama bëgg ay ay sous-marin yoo xam ne bu dawee tuuti dikk ma sol mu dawee tuuti dikk ma sol du ma ko def te mënoo yooyu kon dem naa ci ñu ko man فرنسا تنهار صدقوني هذه فرنسا لولا هذه الخطوط الإمداد التي من دول أفريقيا وبعض الحكام العملاء والله لسقطت فرنسا وأقولها وأنا أجزم بذلك والله لولا نهب ثروات إفريقيا ولولا بعض الحكام الخونة الذين يشترون الرافال ويشترون الطائرات ويشترون الغواصات من فرنسا لأفلتت فرنسا تماما وسقطت ولولا العمالة المسلمة التي تعيش في فرنسا الآن المهاجرين من المغرب وتونس والجزائر والله لو انسحب هؤلاء لسقطت فرنسا غدا أقول هذا لأنه كل واحد يدرس تاريخ فرنسا ويعرف طبيعة فرنسا وكيف أنها هي التي جلبت هؤلاء إلى فرنسا وهي التي ذهبت لخوض حروب في مالي وفي النيجر وغيرها هذا الكلام يؤكد لكم أن فرنسا هذه الدولة لا تستطيع أن تعيش بدون هذه الصراعات وبدون هؤلاء المهاجرين waa ji nag ko xam mbir mi nim demee la ndax nee na France moom mu ngi tàmbali woon a jooru dogon ko nag workat yi traître yi nga xam ne ñoo nekk ay président fii ci Afrique di jël alali Afrique di ko jox France kon ba léegi France ba mu jóoroo yàgg na kon waxatuñ ci France lu ca bokk dogon ko nag waraa kon yi nga xam ne dañuy kompaloo ak France ci seen kaw ay population bu ñu dikkee di def ay gré à gré loo xam ne bu ko France nga bon di wër àddina di ko jaay ca junni kenn du ko jënd ay milliards la ñuy lim jox ko ko ba noppi wër jaar ca gannaaw dem séddoo jikkoog ñoom daal di koy séddoo seen mbokk dogon ko nag ñooñu mu nekkoon ba France xalangoo yàgg na dogon ko nag ñi nga xam ne dañuy jënd arme française maanaam armement wu France bi di jënd ay rafale yi France yi ay roplaan yi ay ay gaali ji France yi kon ba bon ba France joro yàgg na dogon ko nag ay yi nga xam ne moom la France di taal ci biir Afrique doon sam samb doon rajim joo xam ne fu ay tàkke ci Afrique moo ko taal ba noppi dem naan dama leen di dimbali bu fa demee di sàcc or di sàcc jamaa di sàcc pétrole di sàcc manganèse di sàcc uranium di créer africain yi ay problème seen xale yi góor yi di màbb di dem foofu ñu di leen liggéeyloo ci duñ leen fay lu ko jar duñ leen war verser allocation familiale duñ leen fayal duñ leen assurance dañ leen fay jàppe comme jaam yu indi seen bopp ngir jaamu France dogon ko nag loolu nee na kon ba France jóoroo yàgg na lool waaye saa yu France bëggee daanu rek am menn mbaamu africain mu ñuul moo xam ne day dikk ne ko man nga maa war ma jéggeeg yow xur wi mu daal di koy war mu ñokor ñokor yi ba moom xur wi nga maa wàcc kat naa seetal meneen ngonk waaye soo dogon ko nag président africain yi kon ba France daanoo mu ne kon yàgg na lool ba ba France daanoo yàgg na lool لن أخوض كثيرا في هذا الموضوع أول ختائر معنا اليوم أول ختائر معنا اليوم كام 90 مليار دولار استرالي يعني 56 مليار يورو طيب ايه الخسائر الثانيه يا جماعه خلي بالكم انا بحسب 2021 فقط في 2021 فرنسا خسرت 61 مليار يورو اوه من ايه ده من السياحه طبعا الخبر نشر في شهر يك mu ne léegi duma wax li France ñàkk lépp waaye li mu ñàkk ci 2021 dong laay wax ñàkk na lu tolloo ak cinquante six milliards euro ci bénéfice su sous yi ñu ne ci lay yem ñàkkaat na soixante et milliards euro ci lu jëm ci wàllu tourisme bi tourisme français ñàkk nañu ren soixante et un milliards ci euro ñàkk nañ fële cinquante six milliards ci bénéfice te sous yi ñàkk nañ soixante et un milliards euros ci lan ci li ñuy wax tourisme bi ñu continuer ci xalangu France jeet yi يناير 2021 يعني هم بيعملوا إحصائية لعام 2020 لكن هذا الخبر يمكن أن نقول في عام 2000 يعني إعلان عن خسائر 61 مليار أورو عارفين الرقم ده يا جماعة رقم كبير جدا طبعا السياحه وكورونا والامور هذه طيب خدوا كمان عندكم انا طبعا بسرعه عشان الفيديو ما يطولش عندكم شركه دانون الشركه الاكثر ربحا في فرنسا الشركه دي يا جماعه هي من الشركات الكبرى في فرنسا التي تدر مليارات الدولارات لما هذه الشركه لا تربح وتخسر دي تكون مصيبه يعني مثلا احنا ممكن نقول ان الشركة مثلا تنخفض المبيعات اي شيء لكن لما تخسر هذه الشركة هذه الشركة خسرت الكثير والكثير في عام 2021 وهذا الخبر اهو بتاريخ 2021 يتحدث عن خسائر كثيرة جدا لهذه الشركة وهذا التراجع تراجع المبيعات أكيد أنتم عارفين بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل المقاطعة الإخوة والأخوات في دول المغرب الإسلامي في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي موريتانيا في كل الدول لا أريد أن أنسى دولة بفضل الله تبارك وتعالى أدبوا فرنسا وأدبوا مكرون على تطاوله على النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن تطاول هؤلاء ونشروا الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم وهم في خسارة الناس كانت بتشك في نفسها يا جماعة الناس كانوا كل شوية بيسألوني إيه أخبار المقاطعة جاءتكم مقاطعة من أستراليا استراليا نفسها استراليا هذه طبعا استراليا لم تفعل ذلك مقاطعه لفرنسا بس فرنسا يا جماعه بضائعها دوله تعبانه لكن سبحان الله كانه استراليا وامريكا وبريطانيا يؤدبون ايضا فرنسا والله يا جماعه اقسم بالله ان فرنسا دوله مكروهه حتى من الاوروبيين جميع المسلمين الذين يتصلون بي في سلسله المسلمون في الغرب يقولون لي حتى الدول الاوروبيه هم يكرهون فرنسا عندهم عجرفة وعندهم كبر عجيب mu wax ne soixante milliards six milliards lépp ci euro ñàkk na ko lii mu ñàkk ko ci tourisme bi lii mu ñàkk ko ci euh, euh, corona bi lii mu ñàkk ko ca gaal yam doon defar nee na compagnie bi gën a mag ci France mooy Danone Danone daanu na li ko daaneel mooy waxatuñu njartelu wàññeeku waaye pertement bu dëkk moom la daanoon continuer ci deux mille vingt et un bii xëy na di bu demee ba ci kanam dana leen wax ñaata milliards la daanoon ñàkk ginaar bi mu daanoo waaye nee na moom li ko gën a jaaxal mooy France embargo bi ko jullit ñi embargo dafa yemul ci jullit ñi jullit ñi dañoo embargo lépp luy marchandise um France ngir bañ koo jënd ngir bañ gi mu bañ diine islaam ak xeex gi muy xeex diine waaye tubaab yi dañoo embargo France ndax euh, Australie ngi noonu dafa embargo France am na beneen xibaar buy wax ne Suisse moom tamit dafa embargo France ci wàllu euh, roppalaanu guerre yi foofa it France ñàkk na fa ay milliards nee na moom mbokk mi nekk France sax dañ koy wax ne moo ñoom li leen jaaxal tubaab yi européens yi ci boppam dañoo bañ français yi nee nañu lan lañ bañee français yi français yi dañoo dooj français yi dañoo goog français yi dañoo réew français yi dañoo ñàkk respect ci képp ku ñu gis français yi ku ñu def di gis defe nañ ne ab dof nga français yi ku ñu def defe ne defe ne mën nañ laa nax loolu moo tax léegi xanaa yambari africain yi mbaam ngonk yi rek ñoo ci des waaye Europe moom ñëpp dañoo àndandoo ci ne France daal il ñu yar ko xamal ko ne du yow dong yaa di tubaab bu nekk ci Europe te lakkal nga waa àddina lakkal nga Europe xam ngeen ne bëkk démb rek la benn député eh, bu italien taxaw le France de fonte nit ñi na wacc mbaamam yi ñu dem ñibbi nit ñi ñun ñi muy jàpp di sëf di dóor bis bu nekk lépp lu mu ñàkk dem teg ko ci ci ci ci gannaaw nit ñi ñuul ñi lépp lu mu ñàkk dem dem ko ci ñoom na leen ba ak économique moo gën xale yi di màbbe Afrique di ñëw fii te leen fi indi yëpp France mooy buub seen alal di ko indi te seen gouvernement traître mbaam ngonk yi ñoom ñoo leen koy ñoo leen koy jox. ننتقل عشان ما نتفرع والناس تزعل من مدة الفيديو الخبر اللي معانا هذا شركة رينو شركة رينو الشركة الكبرى لصناعة السيارات في فرنسا عارفين يا جماعة خسرت كام في سنة 2021 شوفوا العنوان بيقول ايه 8 مليار يورو وكله خسائر ده هي دي كبرى هو ده عصب الاقتصاد الفرنسي mu dem ci compagnie Renault gi nga xam ne moo gën a siiw ci France Renault ren huit milliards euro perte na ko ren waxuma bénéfice de Renault perte na ren huit milliards de euro ci loo xam ne da ko daan gagné mu ñàkk ko ren ci ay tono yu mu daan am ci wàllu oto yooyu muy defar mu di Renault دان رينو السياحة بيع الأسلحة الغواصات لسه باقي إيه؟ لسه باقي بالله عليكم عاوزين نكمل؟ أكمل يا جماعة هجيب لكم خسائر كمان أفرحكم أكمل معاكم 8 مليار أورو خسرتها شركة رينو يا جماعة فين الأرباح يا جماعة؟ فين الأرباح؟ لما كله خسائر هو كله ضرب ضرب ضرب اسمعوا الحتة دي اجمد كده ولا مش... لا بص ما تعيطش مش عايزك كده ها اجمد اجمد كده يا ماكرون اجمد كده يا ماكرون ما تعيطش اهدى شويه كده علينا وما تعيطش وما تزعلش على الفلوس فلوس ايوه الفلوس ايوه الفلوس حاضر يا فندم اه حاضر يا فندم اهم حاجه في الدنيا اهم حاجه في الدنيا يا ماكرون خلي بالك يا ماكرون الفلوس عماله تروح منك الفلوس يا ماكرون خلونا نكمل يا جماعه الخبر اللي بعده عشان ما نطول الخبر اللي بعده معانا شركة توتال عارفين كم خسرت شركة توتال هذا العام هذا الخبر بتاريخ 2 2021 شهر فبراير شوفوا يا جماعة وهذه الأخبار 7.2 من عشرة مليار دولار في عام 2020 طبعا اعلن عنها في عام 2021 ما انا مش هينفع اعرف خسائر عام 2021 الا لما تنتهي عام الف... mu jóge foofu nag jàll ci total total 27 milliards euros perte na ko ren total 27 milliards de euros perte na ko ren ci li mu waroon a gagné ci li mu ñàkk te kooku it compagnie française la boo xam ne xam ngeen total waaw total moom ku fi taal oto moo la jaay moo la jaay essence wala gasoil total ku fi ku fi am ku fi am uh, oto rek ci Afrique dalay imposer mooy jënd si suñu pétrole bu brut bi yóbbu ko dem xent ko dikkaat di ñu ko jaay lu seer waaye ren moom itam perte na lu toll noonu 2021 كذلك خسائر عام 2020 أعلنت في 2021 7.2 من 10 مليار دولار شركة توتال أكبر شركة بترول فرنسية ومشتقات بترولية سبع طب رينو و... وتوتال ودانون لسه ايه كمان تعال خش معايا شركة الطيران الفرنسية آه... اير فرانس فاكرين علامة كي ال ام دي كنتوا بتشوفوها في في المطارات صح؟ يا جماعة شفتوا المطارات كده علامة الكي ال ام دي كنت بتشوفها انت او اير فرانس صح؟ خسرت سبعة واحد من عشرة مليار يورو اوه ايه الارقام دي يا جماعة؟ ايه الارقام دي يا جماعة؟ انتوا انتوا مستوعبين الارقام اللي انا عمال اقولها؟ 56 مليار 60 مليار 7 و2 8 امال بتكسب ايه؟ عشان كده في ازمات ماكرون يعيش في ازمه مكر يعيش في أزمة كبيرة والله مكر يعيش في أزمة أقسم بالله أن فرنسا مش مكر لوحده فرنسا كلها تعيش أزمة اجتماعية واقتصادية وأمنية أرقام خيالية يا جماعة أنا ما بتكلم عن أنا ما بجيب لكم على فكرة هذه المصادر كلها هذه ار اف اي هذا صحيفة لوفيجارو هذا موقع ار mu jógee fa dem ci Air France International nee na Air France fu mu daan am fukki milliards ak juróom-benn ñàkk na fukk ya perte na fukk ya fu mu daan am fukki milliards ak juróom-benn rek perte na fukk ya juróom-benn la fa am kooku itam ma nga jëm ca yoonu xalangu comme ni la mel daanoon mel ko ak yeneen yi ci des euh, mu ne nag li muy wax ni yëpp du ay waxam waaye waaye journal yi français yi ñoom ñoo koy nettali comme le Figaro ak yeneen journal yi ci des تي ال الفرنسي هذا موقع بي اف ام ما من عندي شيء هذا موقع ذا لوكال دوت فرانس هذا برضه من عندهم فرنسا 24 انا مش جايب حاجه من عندي سبعة وواحد من عشرة طيب هيقولوا لي برضو فرنسا لا تتأثر بهذه الخسائر ففرنسا عندها ميزانية كبيرة فرنسا تنفق على المتقاعدين وبتدفع رواتب نعم هذا الكلام صحيح 100% عارفين ان فرنسا بتدفع فلوس للناس المتقاعدين يعني موجود يعني وبتدفع اعانات وهذه الامور طيب عايزين نشوف نطمن على الميزانيه عجز الميزانيه كم السنه دي يا ماكرون بص يا جماعه هذا موقع فرنسا 24 ارتفاع عجز الميزانيه الفرنسيه الى 220 مليار يورو في 2021 الله اكبر ارتفاع حجز الميزانية الفرنسية إلى 220 مليار يورو رقم خيالي رقم خيالي جدا صدقوني والله رقم خيالي ما انت هذا الكلام لم يحصل في اي دولة اخرى منه فرنسا يا جماعة اللي بتعيش على الماضي والامبراطورية و و ايوه يا جماعة فرنسا تمر بازمة ماكرون قال الاسلام يمر بازمة في كل بقاع العالم ومكر يمر بأزمة في كل قطاعات فرنسا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية هذا مش كلامي ولسه الانتخابات الفرنسية جاية وهتحصل فيها مهزلة مع اني طبعا شامم ريحة ريحة م... يعني تآمر يعني حاطين ناس متطرفين جدا في مقابل ماكرون حاطين ناس متطرفين جدا ماري لوبان هذا الكاتب الحاقد الذي يريد منع كلمة محمد صلى الله عليه وسلم وتسمية محمد وإغلاق المساجد اكثر من ماكرون وحاطين واحد تاني عشان الناس ترتمي في احضان مين ماكرون عشان يكمل مدة أخرى الله أعلم أنا شخصيا حاسس شامم ريحة شياط في فرنسا الله أعلم إيه اللي هيحصل في فرنسا لكن يعني موضوع الانتخابات الفرنسية الآن الأجندة الرئيسية فيها ليس والأجندة الرئيسية هي حرب الإسلام آخر خبر معانا وهختم معاكم فرنسا وفقا لتقديرات الاقتصاديين في فرنسا هذا راديو يوروب 1 بيتكلم عن 60 سنة فرنسا تحتاج إلى 60 سنة لتسديد ديونها بسبب أزمة كورونا طبعا كورونا مع خسائر سبحان الله خسائر من كل مكان ما كل الدول يا جماعة فيها كورونا يا جماعة اشمعنى فرنسا mu wax ne France dañoo dugg ci gutta guñ dul génn ndax mboolem ñi nga xam ne ñoo yore ay parti tey seq Macron kenn ku ci ne ni nga bañee l'islam sax Macron bañeewul noonu lislaam waaye yàlla itam mu ngi damm seen lu bon ci seen économique Europe 1 rajo bi tudd Europe 1 nee na France li mu am ci bor juróom benn fukki at ci kanam la war a liggéey pour mën kaa fay France li mu am ci bor ci front moni xaw ak ñooñu France juróom benn fukki at la war a liggéey pour fay borom yooyu juróom benn fukki at la France war a liggéey pour fay li mu am ci bor doonte gone yaa ngi fab seen gaal yi ne France fa la ajana ajana nekk fa la ñuy dem tubaab yi dañ ñoo gën a yeewu donc tëpp ñu sutura waaye am nañ problème yoo xam ne seen problème mu bopp la ما الدول الأوروبية فيها كورونا ولم تخسر كل هذا الخسائر سبحان الله سبحان الله هذه حكمة الله سبحانه وتعالى هنعمل إيه بقى هو اللي في أزمة فهذا التقدير من هذا الموقع 60 سنة وهذا موقع آخر اقتصادي يتحدث عن كم يا جماعة أكبر لكم الشاشة عشان الناس اللي تقرأ من الموبايل 67 سنة فرنسا تحتاج إلى 67 سنة لسداد ديونها وعلى فكرة في نفس التقرير هترجم لكم إيطاليا إيطاليا اللي هي دولة مع مش زي فرنسا أبدا في الاقتصاد ولا في التصنيع محتاجة 26 سنة أما فرنسا فتحتاج 67 سنة عشان تسدد ديونها الله أكبر عليهم شفت يا جماعة الكلام ده مش من عندي فعام 2021 هو عام الخسائر الأكبر لفرنسا بامتياز بعد إلغاء الصفقة الصفقة الأسترالية مع فرنسا اليوم اليوم بتاريخ اليوم فرنسا تعيش أكبر أزمة في تاريخها وهناك مشاكل كثيرة وفرنسا هتتجنن أصل خلاص لغوا الصفقة وأخذوا mu wax ne France sax am na ñeneen ñu def ihsaiyat ñu wax ne du soixante ans mais soixante sept ans la France war liggéey pour mën a fay ay borom mu ne France nag wenn lay dong la am corona bi corona corona corona waaye nee corona boobu France daf ko laye dong waaye am na yeneen réew yu am corona ci Europe te ni France xalangoo xalangoo wuñu noonu ni mu daanoo daanoo wuñu noonu France na euh, moonu nu rey ndax lim ñu rey <laughs> lim ñu reye mooy bu ne corona ñu ne corona corona Bu ne korona korona yine korona korona korona korona xam waaw maanaam moom li muy yëkkati corona di ko coow yëpp da koy politique ngir di ko sàngee pertement yi mu am ak jëll yi mu xalangu ci wàllu économique te embargo bi ko jullit ñi def moo ko ko yóbbee mu daal mu ràbb buum corona nag soral ko boppam ba yóbbaale ni ci corona ji fu mu ne corona ñu ne corona fu ne corona ñu ne corona waaye corona France moom ak làqatoo kaay la gu muy làqoo waaye waa ji nee na Europe am na corona ci yeneen i dëkk waaye ni France di layee ni mu layewu ko ci corona te ni mu daanoog ni mu ñàkkee ay pro ni mu amee problème itam men réew amewu ko ay problème dara nag yóbbewu ko ko lu may xeex gi muy xeex l'islam nee na nag problème moom ak Australie moom France yenu na koy loxoom jooy na ko fu nekk waaye Australie lànk na ne da ko def léegi France dem na ba mu ngi xënteeg Amérique ak di ko ak di tëkku naan ko yéen ay traître ngeen yéen ay workat ngeen da ngeen maa suufu yéen ak Angleterre ngeen jël sama marché waaye ñoom itam lan mooy secret li tax ñu def ko ñoom nee nañu dañoo bëgg Australie am kattan bañ man koo yiiroo Chine ndax kattan ak Chine fi mu nekk nii réew mu am kattan moo ko mën a tenir te fi gën a gaaw pour Chine jaar fa song Europe mooy côté Australie ñeen ne nag léegi nañ ko jaay ay sous-marin yoo xam ne sous-marin nucléaire lay doon yoo xam ne bu bu ni rinkum ak Chine ah, dana ca dana ca mën a nekk di coste coste bañ fekk ko ca waaye buñ ko bàyyee rek bu bu Chine jógee ne ko dan biir day egsi ci seen kaw te loolu musiba la ci ñoom kon ñoom itam la ñuy jàppale Australie mooy ñagu seen bopp waaye mayuñu ko nag armement yañ koy jaay dañ ko koy jaay waaye mayuñu ko ko loolu nag moo nekk diggante Afrique maanaam maanaam France ak Amérique ak Angleterre ak Australie du ma mën a wax lépp tey foofu laa yem waaye bu subaa dinaa dikkaat dugg ci mu gën a leer wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa